bismillah bëgg a gañe day ah taxulaa gañe de mburoog soow taxulaa gañe termine yéene kaay ne dagg-daggaanu goxu Ndakaaru njaajal joob yi lé te nit ña ànduñ ca waaw dama ne la ministre Omar Gueye mi fan la jëmee président Macky Sall looloo jëra laaj nag laa gis nga ca ndorteel ga day waaw départementalisation Kër Massar loolee lañ doon waxtaanee de dëgg la parce que nag bokkoon na ci doléance yu njëkk ya ñaxtu ne moom la waa commune boobee doon kaas naan Kër Massar nañ leen ko defal kon département waaye gis nga léegi nag boo ca génnee Kër Massar googee waaw région Ndakaaru njaajal joob gi lé ko bëgg a caxat-caxatee di koy laalaat waaw parce que nee nañ dañoo bëgg a indi nag ay jubbanti ay erreur yoo xam ne day am na nag ci acte deux décentralisation yéeni kaay dee média gi ne waaye muy Mbambilor Jaxaay Malika xotti nañu la nga xam ne moom la Macky Sall mi lée Omar Gueye daal di koy yóbbul dëgg dama ne la mer laa la wax ñëpp a mer ñëpp mer Cheikh Dieng di meeru ji de caaroy kaw chargé des élections ci parti démocratique sénégalais ci la tee moo yéene kaay waaw nee na gis nga Aliou Sall ak magam ji lée yi nga xam ne ànduñoo ak ñoom ci diwaanu Pikine kii lañ bëgg a récupérer ala wax xam nga Aliou Sall buy wax naan ay jidde caaroy kaw ak tali bu mag tali bu bees école 6 ca Géejawaay la bokk loolee day mandargaal ne Aliou Sall mi de maire importé la xamul fa mu dara Cheikh Diène Aliou Sall xamul fu dul fatik laa la wax may wax mu naan laan Sarr ci Géejawaay la bokk xam nga ne lii mooy wane ne ñii di waa Géejawaay seen maire bi lay dañuy ko importé Fatick lañ ko jëlee xamul dara ci banlieue bi laa la wax tali bu mag nga xam mooy capitalu su dee xamul nag fan la googee yam na dem laaj ko waa Géejawaay man Cheikh Dieng may fàttali Alioune Sall ne ko gis nga Géejawaay benn commune la woon ci département bu Pikine bi lée buntu Pikine tali bu mag école 6 mooy fa atu ñaay léegi waaw Mousdalifa jidda terrain màgg daan guy ga wane na ne kon coppite yu bëree bëri kon am na fi laa la wax 24 heures yéene kaay ne Barthélémy Dias day moom it attaqué na Macky Sall Sud Quotidien ne baxte kay bi nga xam ne dañ koo nar a daggaat nii lée ne kenn mënumaa teree doon candidat ci

Ali Baba Coumba Naar personne ne peut m'empêcher d'être candidat à la mairie de Dakar ñëf tribune yéene kaay ne Barthélemy mi de li mu ko yéen diis na de li mu ko yéen diis na de booy Khalifa Sall bi day baax nee na li tax Macky Sall ne dee dana daggaat woon Ndakaaru ngaay jël joob du dara de lu dul xot yenn ci ay commune u Ndakaaru gi la parce que xam nañ xel Macky Sall ak waa këram ne mënuñoo gañe Dakar léegi nag il faut ñu jëlee fi Ndakaaru ci libération yéene kaay waaw nee na président Macky fu laay jaay Dakar de lu ko mooy ma ñam jeexal ko de booy Dakar maire maire moo Sacré Cœur lée ci laa séene kaay waaw nee lii ma gis tey nekkul opposition déedéet Barthélémy Dias ci tribune yéene kaay ne yow ab boo xam ne bu ñu waxee gaz yow doo ca wax bu ñu waxee pétrole nga ne pat bu ñu waxee zircon nga ne pat bu ñu waxee découpage administratif ña ngay dakk Ndakaaru njaay jël joo te ñoom ñi gën a bëri ci punkali ci opposition bi Dakar boo ca àndee complice woo nag askanu lébu gi ñu jóg taxaw parce que Macky Sall moomul Dakar ñëw 24 heures yéene kaay ne cool suuf sa am ca Sédhiou gële coolaa nga sin kër mucc Mamadou Lamine Keita day la ñu tuumal Cheikh Sarr Benno Bokk Yaakaar ci l'Observateur waaw nee na opposition bi daal ñi ngi commencé nangu ne gagné nañ leen ci élection locale yi te bis ba jotagul ba koo jaare ci fichier électoral bi lée waa LD Debout ci tribune yéene kaay waaw nee nañu wàllum dagg a a dakal way laa waxtaan ne koog société civile yëpp nag laa la wax évidence yéen kaay ne waataayu élection locale yooyu ca diwaanu Kaolack waaw Abdoulaye Xuma wax na gars yi lu leer lu mel ni mi di la wax mercenaire yi maa la parce que Abdoulaye Xuma day ah nee ñin ñi xam ne dañoo ànd ak Macky Sall la kan mi dee comme sabar ko tas de armée mexicaine la ku ci nekk nga taxaw di fëgg sa naan affaire bi yow laa yoway Samba ku nekk nee nga général ku nekk ngay fëgg sa dënn naan maay général te doo tus Abdoulaye Xuma day ne moo tax maa ngi woo président Macky Sall mi ne ngir laa la wax maam waaw nee na xalif généralu murit yii di Serigne Mountakha la mu wax politicien yëpp a ko laa la wax da koo jaale ci Ousmane Sonko rek waaye politicien yëpp la doon waxal laaste professeur Abdoulaye Bathily day waaw la mu yekk nguuru Macky Sall kii moo tax Abdoulaye Diouf Sarr ak ñamoo àndal waaw yekk nañ professeur Abdoulaye Bathily lu mel ni xamee xam leen nañ ne Abdoulaye Bathily mi lée lii mu wax du waxu kilifa de Abdou Mbow mi lée nit ñi dañ a critique Abdoulaye Bathily day waaw cadre yi lée waa affaire yi ñoo Abdoulaye Diouf Sarr waaw yëkk nañ ko lu ni xamee nag laa wax l'observateur ne waayow mbañeel gii nga xam ne moo dox ci diggante Macky Sall ak professeur Abdoulaye Bathily lan la cadre yi day ci yéen kaay groupe Futurs Médias gi waaw nee nañ professeur Abdoulaye Bathily mi lée nee nañu professeur Abdoulaye Bathily day waaw la mu mënta wan daal mooy président su commission union africaine bi mu ñàkk professeur la constance la mu waxoon démb fa nekk ba jile dëgg la libération yéene kaa ne ca jamono joojee yorinu mi ak séddale ndox mi ci réew mi seen o seen o de scandale la la wax maar de taali waaw dama ne leen ndox mu sell te baax bari loolu teg ca waaw mais lii léegi patron yi la yu bëree bëri patron yi donc ñoom ñooy am ndox mu doy te baax l'eau est devenue un luxe maar di taali waaw mais xoolal ma yow vingt pour cent du capital au privé national onze pour cent yi lée liggéeykat ya nekk ca gox bax eh waay samba ca ma waaw amul benn investissement boo xam ne bu dëgër la te moo ni diggéen nag ñoom waa mooy nañ leen doo xaar ba seen waxtaan wa pare yooyu samba dama ne la xoolal ma directrice générale seen o tax na ba ñu baree bari ca biir kër ga dañoo mer ba futu nag laa la wax ñu mer ba futu kay moo ñu ne ci wàllum football bi ubbil direct news ne ñu Augustin waaw la mu bëgg day mooy ci tewal fédération sénégalaise de football du fi amee de dama ne la loolu mandat de trop lu ëpp la tuuru quatrième mandat ëpp na honneur maître Augustin Senghor waaw dama ne la waratul toog file naan daa bëgg a jiite wàllum football bi maa la ko wax ci yow am réew moo xam ne saa bu ñu demee compétition ba ñëw ñu naan muñ leen dina baax muñ leen dina baax Augustin Senghor ci réew mu mel noonu ne kàddoom waratu fee jib de déedéet dama ne la gis nga maire Gorée bii taxul ñu naan football bu jëm kanam de développement du football sénégalais Augustin taxul yéena kaay pa jógee fay bi ne te gis nga nag falaatu Augustin Senghor ci réew mi ne mooy suñu football bi moom dana dellu ginnaaw fukki atu yàlla ca ginnaaw laa te bis bu jàllee ci 2021 bi nekkaat président fédération Sénégal football moom Augustin Senghor waaw waxuma la dellu ginnaaw fukki at de waaye dellu ginnaaw fanweeri atu yàlla la wax maanaam football moom day jeex ci mim réew moom football moom dootul amati Sénégal yow nit ñaa ngay kaas ay trois mandats nga naan quatre mandats <laughs> waaye comme que pétrole bi gaz bi lée lañ bëgg a fay ñenn ñi bëgg laal troisième mandat te dañ ko fiy tere waaye Augustin bu ko neexee laal quatre wala cinq boo paree ma ne la alaaji tëjal Sendwave dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meek ci àdduna si application Sénégal set indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablet mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saa si ak ci ite bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal 7 muy application booy téléchargé rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleek coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement.